man Selbé Ndom kooruma woon pour Sonko di jóge këram te bëgg réew mi euh, def sondage njëkk génn rek doon troisième maanaam war naa xam ne di xaar élection deux mille euh, vingt quatre ñëw du woon yoon muy dem ci salon de massage bañ koy taqal d'accorduma loolu maa ngi koy ziar nag mm-hmm. na ko incha allahu rabbi maa ngi koy ñaanal Macky yebul Sonko ci oto yóbbu ko ca salle de massage ba nag vraiment uh-huh. yóbbuwu ko uh-huh. xëy na Sonko yaramam metti na uh-huh. c'est dafa xaw a juum tuuti rek fi mu juumee mooy fi mu jóg mais mun na tabax këram tabax fa benn salle de massage wala euh, mu nekk ci néegu boppam wo jabar aw bi mu nekk nii woo ñaar bu nekk nii mu ne bësal leen ma Sonko dafa euh, yootu doon cinquième président de la république du Sénégal kon du yoon muy dem bañ koy takkal man naa ko en direct demandé naa ko ne ko Sonko lu tax ngay génn sa kër di dem salle de massage bañ naan la yaa fa def nangam du woon yoon Adji mhm. na réew mi mhm. torop sax moo aji moo aji yow mi yow taal nga dëkk bi de pono yaa ngi tàkk réew maa ngi tàkk réew mi tàkk na ñoo xam ne xale yu ndaw a ngi ciy gaañu deret yaa ngi tuuru ah aji Sarr daal na fexe na fexe fexe fexe fexe ba li muy wax na doon dëgg bu doon dëgg maa ngi ñaan président mhm. na téye Adji Sarr tëj ko rab billaahi wallaahi wa def mal fii senegal loo xam ne mhm. amu fi d'accord indi na fi fit na joo xam ne maa ngi ñaanal Sonko ci daraje Seydina Muhammadin ndax man toujours nee naa man dama bëgg Sonko dëgg la bokkuma parti mam parti Sonko bokkuma fa man politiku ma fenn bokkuma ci Macky Sall mm. bokkuma pire bokkuma PS PDS dama bëgg euh, Ablaye Wade def ko mm. comme sama papa ndax mag gi mu mag mag gi mu mag mm. moo tax ma bëgg ab lay Wade waaye maa ngi la Sonko mm-hmm. ndax parce que nee naa ma dama bëgg Sonko parce que dafa julli ba mu am fii waaw mm-hmm. maa ngi naan Sonko ibadullahi saalihin la mm-hmm. maa naan Sonko ci xayru umma yi la alxuraan dafa am kuntum xayru ummatin uxrijat linnaasi noo man gëmuma lool mm. dëgg la vraiment billaahi wallahi wa taala su ma ko fekkee woon billaahi bu ñu may rey dama naan maa ko gis mm-hmm. mais man gëmuma loolu mm-hmm. du mën tam pexe la mm-hmm. bu nekkee pexe la Sonko moo leen ko may ndax bu génnutoon këram di dem ak lu ko mënti dal na ut médecin boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. boo xam ne da koy defaral te xam ne dafa am lu mu yootu mm-hmm. ndax mën nañ koo fexeel wala leneen ak leneen. bu nekkee dañ koo fexeel kon fiir la boo xam ne. jéggi na ci ñoom ñu jàpp ko.